état dëgg la secteur privé bi mooy gën a créer ay emploi mais bu fekkee ni secteur privé bi état du ko jox liggéey bu fekkee secteur privé bi teg nañ ko loo xamante ni ci impôt attanu ko dama jàpp ne bu yàggee secteur privé bi dafay dee te ku nekk xam na ni secteur privé Sénégal fi mu toll ni état bi joxutu ko liggéey même suñu maçon yi li nga xamante ni mën nañ ko ak su néew xeebal nañ leen ko ba duñ ko jël jox ko mara gis nañu ne cité de l'émergence bi nekk fi pompier nekkoon ñu koy tabax mais bâtiment yooyu bu fekkee ni Sénégal amuñu ay entrepreneur amuñu ay architecte yu mën loolu dama wax ni kon Sénégal bu yeboo ñun ñu xoolaat suñu bopp wala ñu xool lu ñuy def. parce que secteur privé boobu ngay wax état bi day jël marché di leen ko jox mais euh, euh, au fur mesure liggéey bi dem app bi ñuy leen di euh, réserver léegi ñu ko respecté loolu tamit dina indi problème te état. lépp prévision la rawatina mu programme loolu tamit bu la joxee app boo matalul tamit yàgg-yàgg daf koy mujj nangu ci say loxo rek gis na baarataal ak yeneen concession yu mel ni ñoom. waaw mais buñ ko dee nangul ay doxandéem loolu nga wax buñ ko fekkee bañal nañu ko ñi dëkk ci réew mi buñ ko nangul doxandéem ndax ku nekk xam na nit terre bi li ci am arnaque rek la du leneen. lan nga tuddee arnaque. xam nga barki Dembo Ndiaye dégg nañu. li nga xamante ni moom la Sonko wax te ba léegi dégg gu mu ko weddi kon damay jàpp ni li wax lu am la parce que wax bu ñu dul weddi damay jàpp ni kon niñ ko wax nangu nañ ko. bu waxee ni jël nañu lu tolloog ci deux cent milliards joxaat ko entreprise français bi pour mën a def benn festival d'inauguration te ñoom ñi nga xamante ne ñoo ci nekk weddi wuñu ko kon damay jàpp ni dëgg la xam nga Sénégal dañuy wax ni. mën nañoo jiiñ nit lu nekk mais nag weer di sax dindiwul ma mais na nga wax ni lii di wax kat amul waaye mais bu fekkee ñoom ki leen di wax saa yu leen waxee rek daf leen wax ni yor naa kayit yi maa ngi preuve te ñoom duñ si tontu kon ñun dañ naan li ñu wax dëggal nañ ko ndax tubaab bi moo ne qui ne dit pas qui ne rien consent cela veut dire que ñoom li Sonko wax dëggal nañu lu am la beneen bi même bu fekkee ni doomu Sénégal yi bu ñu joxee bu ñu leen joxee liggéey du ñu respecté normes yi du ñu respecté date de livraison yi ñuy wax ni moom la ñu waxante ak état bi loolu état moo ko wax mais amul ndax ñun dañu am ay secteur privé bi dañu am ay entrepreneur yoo xamante ne ñu xarañ lañu xam nga ku mel ni tey jii nii pour ne pas faire de la publicité lu mel ni ay Pierre Goudiaby Atepa lu mel ni ay Baratal mais Afrique lu ñu fi dul liggéey amul Aliou Sow yàlla na ko yàlla yërëm CDE mais gis nañ leen liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey kon dama wax ni loolu waxul kuy lay la mais lii sax garaawul buñ ko doon waxee su suñu réew sax damay jàpp ni xëy na li ñu naan le linge sale se lave en famille xëy na on est en de linger entre nous mais président Macky Sall bi nga xamante ne dem na di lebi ji xaalis club de Paris club de Paris lu mu def dafa taxaw adduna bi yëpp di ko déglu mu ni Sénégal suñu secteur privé ñu parce que ñi soo leen joxee liggéey non seulement duñ délai bi ñu la wax ni moom lañ koy jox duñ la ko jox waaye duñ ko liggéey liggéey bu baax. est-ce que est-ce que ci seen kaw bu ñu xamee situation bi dal na ko fi dalati ko fi su lu mel noonu amee day jàpp ni rek euh, loolu la parce que ku ndóbin rey sa maamet foo seen lu ñuul daw de. waa ma ne ki ki rey maamam. Mm-hmm. ak ki rey bokkul. Mm-hmm. dañuy wax ne nguuru Macky Sall bi ndóbin sax rayeetu fi ndax ñoom ñooy ndóbin dama wax xel munul nangu nga génn ba dem bitim réew àddina yépp di la déglu mhm. sa secteur privé mhm. nga waroon a fexe ni nga fexe ba tubaab yi di gagné ay marché yow loolu waroon nekk sa mhm. amoo looy def ludul di leen fa doyadel di wax ne ñii kat sama réew leen dëkk waaye wóoruñu ndax boo leen joxee liggéey la ñu waxante ak yow duñ ko def dama wax ni loolu ëpp réew mhm. loolu laa wax dafa ëpp maanaam même bu fekkoon lu am la waroon nañu fexe ba li nga xamante ni mooy suñu secteur privé mhm. seen jumte ñu jubbanti leen fii ci biir réew mi mhm. te bañ koo jël du ko yóbbu ci bitim réew du ko fa wax ñu di ko dégg mais Alstom ñi nga xamante ni ñoom ñoo defar tey teer bi mais société bu faytoon la carrément da ngay xool Macky Sall bi nga xamante ne ngi leen di jox li nga xamante ne ni moom mooy travaux terre bi. Mhm. mais fête nationale la woon ci France. ouvrier yi ñëpp a génn ñëpp génn parce que dafa fekk société boo xamante ne dafa nekkoon carrément en faillite mu yëkkatiwaat ko. Mhm. gis nga nañu waxante dëkk. charité bien ne commence par soi-même. Mhm. bu ñu jël ñi nga xamante ne ni ñooy ñi nga xamante ni ñooy les binationaux teg leen ci kaw secteur privé bi. dañuy wax ku ñëw ci am réew mhm. liggéey fa am fa xaalis dem jël ko jaayee ji ko ci beneen réew mhm. xëy na liggéey nga ko ci réew moomu waaye jëriñoo woo ko ci réew moomu mhm. kon dundaloo réew ma dundaloo réew mi parce que économie dëkk bi quand même ce taux de croissance là bu ñuy wax la moo tax sénégalais yi sonn pratiquement fi mu toll nii sénégalais yi dañuy sonn koo gis mi ngi ay problème yu dul parce que c'est un taux de croissance extraversé français yi mais réew mi nu ñu sonne ma mama réew mi nu ñu sonne président de la république nee na réew maa ngi dox mi ngi ci ay jéego yu mucc ayib croiss euh, taux de croissance 7 pour cent léegi euh, nee na sax bala ñuy yegg 2020 mu dem 12 pour cent foofu réew mi doxa nga fa lan nga tuddee réew mi doxul. mais mais Macky Sall mi wax loolu moom moo la gën a xam réew mi doxul. laaj ma lu tax ci naka. kan moo wax ne dafa yokk bourse familiale ndax dafa gis ne ndóol mi dafa gën a bëri ci réew mi. xam nga réew mi dox. Mhm. nga dem ba nga jàpp ni yow bourse familiale. war nañ koo yokk yokk famille yi ñuy dimbali ndax famille yi ñàkk dañoo seet ni dañuy gën a yokk ci réew mi. Mhm. ah ba xiif di leen yott. de déet xiif yootu leen dem ba ñu xiif parce que xam nga benn waxkat bu mag dafa wax ni ku lekk ba regg su la neexee nga ni kenn xiiful li ma gëm man maam mhm. mooy Sénégal gi ñu nekk. Mhm. Macky Sall dafa ameel nit ñi ax ndax biñ koy jox réew mi condition yi ñu ko joxe woon réew mi. joxe ko woon réew mi ci condition yi mhm. maanaam bu ñu demee ba nit ak nit sax ñu jotee ma jàpp ni yow ëpp nga ma alal dama lay ragal yóbbu ci kanamu yoon parce que damay jàpp ni yoon léegi yoon la boo xamante ne ñi doole ñoom lay protéger di faagaagal ñu faible yi dama wax ni Macky dafa indi ci Sénégal loo xamante ni amu fi woon bu ñu demee ba ñun saa ñu génnee jàkkaarook alkaati jàpp ne alkaati bi mën na xëy dal suñu mën naa dal suñu kaw ndax léegi su suñu xel yi loolu lañ ci installé dañoo formaté suñu xel dugal suñu ni ko police bi nga gis nii seen ay ennemi lañu mën nañ leen faagaagal à tout moment je dis que y problème mhm. suñu demee ba jeunesse bi nga xamante ne nii ñooy espoir suba ni man duma toog ci suma réew suma yaay di xiif wala may gis ay yenn problème si suma biir famille te mënu ma ko faj il y problème te ku nekk xam na ni Macky Sall atam yi mujj metti na trop ci côté sécurité mhm. boo xoolee li fi réer ci ay xale ba léegi kenn xamul fu ñu leen dugal kenn mënul wax nu mu toll problème de sécurité dafa posé wu pas plus que lamb bi mujjee am gis nga insécurité bi nga xamante ni remarqué nañ ko ci Sénégal mooy ay nit yoo xamante ni dañuy dugg ci ay taxi di tëb di fëkk alalu nit ñi di daw parce que xale yooyu def yooyu parfois man sax damay wax ni que xale yi doo leen mën a condamner xamul tax loolu mhm. parce que xale yi li ñu moom ay nit a ngi ko sàcc jël ko tëdd ci xale yi xëy di leen gis te mënuluñ leen dara mhm. xale yooyu ñoom ñooy taxaw ci angalu koñ bi ni man jël nañ suma alal ma xam ni kii moo ko jël procureur bi de la république gis naa ko mu toog mi ngi seetaan gisuma ko mu def benn jogo mu ngir jël sama alal kon man dinaa fexe nu ma mën a amee baax na parce que am na benn xale bu ñu doon àtte tëj ko papaam dafa wax ni sama doom sàcc bu ndaw la cela que papa moom xam na ni am na ñu sàcc alalu réew mi ñu leen di way ci télé yi di leen génne ñu nekk ci rajo yi nekk ci dëkk bi yor seen oto yor alal joo xamante ne askan wi ñoo ko moom dama wax ni Sénégal li fi xew dafa ëpp. ëpp na ba yegg ci ñi nga xamante ni ñoom la askan bi yaakaaroon jàpp ni dëgg bu jotee dinañ ko wax ñu dem ba mujj gi jël mbubu far. Mhm. sol mbub moo xamante ni ñaaw na. may profito di wu bépp jullit bu nekk ci Sénégal di wu bépp jullit bu yeewoo géejawaay te xam ni keroog duñ fa gis ñaaw na jéggi na dayoo. man nag maa ngi interpellé ligue yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite imaamu Sénégal yi yi nga xamante ne ñoom daanaka màkk ak bàkk dañ cee takkoon ay rajo di wax di interpellé aussi ñi nga xamante ni ñu ngi leen di woowee ay xalifa ñu nekk ci dëkk bi te ñu déggoon leen ci màkk ak bàkk di leen wax ne tey nag l'islam la ñu dal ci kawam tey l'islam la ñu xotti war maam ndax ku ne xam na ne tama moom mën naa yem ci ngéwal ga waaye bu ñu jëlee ba jël tama yóbbu ko ci inauguration juma il y problème bu ñu demee ba jullitu Sénégal yi toog wara a kàbbar seen kanamu borom toroxlu seen kanamu borom jaamu seen borom ñu tee leen fa ndax ay propagande di wax ni que dañuy gërëm di wëg yaa def ci Sénégal émergent nangam ak nangam fàtte ni ñoom le devoir mi ngi leen di xaar mooy ki nga xamante ni moom moo leen bind. te moom moo fi indi buur bi te bis dina jot mu jëlee fi Macky Sall jëlee leen fi ñoom ñooñu ñeneen des ci kaw suuf di fi jaamu yàlla ñeneen des ci kaw suuf yor réew mi kon nañu def attention ci yenn affaires yi. di wax ni dëgg buñ koy wër ci penc suba ba ngoon mu taw feeñ dafa am ku juum ñu ragal ko koo wax li xew ci senegal nañ ci jóg jéggi na dayoo mhm. ñaawlu na ruslu na mhm. fii réew mi jëm baaxul. ki nga xamante ne moo nekk ci réew mi di buur di bumi jël yatam di dóor di def di dindi jël police di ko utiliser contre ses adversaires may profité ci occasion bi di massawu les xalifis di massawu les karamis bu ñu demee ba léegi dañuy fekk nit ci biir këram jël ko yóbbu ko ñuy wax naan police moo ko fi jël si ndax lan njortu nañu ni ñii kat am na lu ñuy nas njortu na la la ñuy wax de njort nañu ne am na lu ñuy nas justement ñoom est-ce que amuñu raison ci ci seen kaw ndax bu ñu seetloo lu toll ni président de la république bëgg a dugg ci département ngeen ni waru faa mën a dugg est-ce que du loolu moo indi coow li yëpp itam. non dama ni président kenn amul gis nga l'État c'est le léviathan c'est un animal monstrueux gis nga État képp ku wax ne day xeex État xamul État gis nga Sénégal police bi fi nekk gendarmerie bi fi nekk. képp ku wax ne dama koy lëmbe sax léeg suma su la xoolee man dama lay yërëm parce que damay xam ni li ngay wax daanaka xamoo ko mhm. parce que loolu mënul nekk mais nag bu fekkee ne yow dangaa ñëw ci benn département ñu ni la diw de ma nga foofu waaye daanaka moom mooy locomotive opposition bi foofu nga jàpp ni kooku boo ko jàppee yóbbu ko ci kaso bi dina tax ba opposition bi lañ fa doon doxee dina sooxe ngay wër ñooñu di jàpp par benn di tiital ñeneen ni ngir li nga nar mooy xam nga ni sénégalais yi wan nañu la ginnaaw élection yu mujj def nga lépp loo mën ci jaxase ko ci ay nit nga jox leen carte électeur ñu dem ca centre de vote ya ñu war a voté duñ fa fekk seen nga dem ba jàpp ni yow mënutoo gañe nga ni kat man naa xool léegi nu ma tiitalee nit ñi génnee police génnee gendarmerie teg ko ci mbedd mi wane leen ni ku génn dama lay yóbbu kaso te ñu xam ne sénégalais dañu ragal violence <laughs> loolu moo tax tey Macky Sall def lii nga xamante ni moom la def waaye nag moom na xam ni bu fekkee ni jàpp na ni. mama ñu jël kooku moom sax joxe gu ñu woon numéro bi waaye 88 628. allo salaamaaleykum 05 05 salaamaaleykum. ça va ñu ngi sant bu baax a baax. man la Ousseynou dama bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi en direct Ousseynou foo ñu euh, foo ñuy woowee. waaw na ngeen ñu ngi sant bu baax. dama doon wax ak dama doon mu uh-huh. ngi lay déglu. Ousseynou. allo salaam. allo kon la Babacar. déedéet. ah ok bu de Mama moo fi nekk. ah Mama waaw. Ah, Babacar ñëwul. déedéet Babacar ñëwul. Ah, sant ko gërëm ko moom ah, Ousseynou doon ñëw ci bile émission waaye mama bu ñu woyee ci li ñu doon wax rek mooy situation politique bi fi mu toll nii nee ngeen l'heure est grave lan moo tax ngeen ni l'heure est grave. non dañu jàpp ne. Mhm. police li ñu doon xaar ci moom. di ko xaar ci gendarmerie. di ko xaar ci tribunaux yi. surtout ci conseil constitutionnel. li ñu doon xaar si ñoom mooy le conseil constitutionnel a faussé à deux reprises. ci naka à l'attente de sénégalais. ci naka xam nga bu fekkee ni une décision de justice. Mhm. li koy précédé mooy une instruction. parce que noonu lañ ko mën a tuddee ku nekk dégg na ni Boun Abdallah Dionne génn taxaw carrément ni ñiy jàkkaarloo ak Macky Sall du ñu mat juróomi nit. loolu moom dama foog ne lu nit mën a ñëpp dégg nañ ko. moo ko fi wax gisaane na ko wax. moom sax du gisaane kat. Mhm. Euh, boo ko kenn tuddee gisaane dama ne. Mhm. fa ñu toog ñoom def la ñuy def def seeni mbiru bopp ba xam ne juróom la ñuy doon ñoom xam nañ ko te ñun itam xam nañ ko waaye nag dañu wax ni ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi di àtte xaaruñu woon loolu si ñoom xam nga lan lañ doon xaar si ñoom que le droit soit dit. mais malheureusement. le droit est parce que. parrainage la ñu wax ngeen def seeni parrainage ñu dem kenn ku nekk déposé machine bi génne li muy génne ñu tànn ñi ñuy tànn ñi matal ñu publier ngeen ni euh, jaarul yoon fan fan ngeen sukkandiku ni jaarul yoon. mais dama ne ñun waxuñu ko ñi fa duggoon société civile. Mhm. donte nag ñoom mu njaay si jëluñu seen ay responsabilité ñi fa duggoon ñoo ko wax ñoo ne mbir mi am na fu mu sooxee xam nga ñoom lu ñu tontu. su beneen yoonetee dañ koy améliorer déedéet du loolu loolu du affaire loolu du affaire bi. Mhm. xam affaire mooy lan mooy une loi dafa être parfaite mhm. maanaam yoon dafa war a jub xocc warul am ay dëng-dëng bu fekkee ni ñoom ah, dañoo jàpp ni. ki defar yoon sax jubul. non dama ni. ki defar yoon sax dama dama ni mhm. bu fekkee ni da indi mbir teg ko ngir boo ca yeggee nga mën koo jëfandikoo ci na mu la neexee la taxoon Macky Sall indi parrainage bi. mooy gàllankoor ñi nga xamante ni ñooy les candidats à la candidature loolu rek moo ko taxoon a jóg dégg nga professeur Amsatou Sow Sidibé dégg nga ajibu Soumaré dégg nga Aïssata Tall Sall ñi nga xamante ni seen ay adjoint yi leen parrainé bi ñu demee dañ leen wax ni leen nii dañu leen a parrainé ba pare parrainé keneen ñeneen ñi ñu ni leen nii nekkuñu ci fichier bi te nga jox leen carte d'identité ñu vérifier numéro CEDEAO bi mu nekk numéro bu conforme maanaam carte d'identité bi autorité administrative bi moom moo ko joxe ñu nekk ci fichier bi nga xool nga ni ñii nekkuñu si xam nga lu ñuy def dañuy def une sélection de candidats te sélection de candidats boobu li ñu njortu ñu jàpp ko mooy loxo nguur gi génnu ci lan nga jàpp ni euh, moo tax ñu sélectionné candidat yi. Mm. bi parce que liste yi bu ñu ko buñ bi ñu nee ubbi nañu liste yi pour parrainage ku nekk da nga dem jëli ji y avait plus de cent et quelques candidats. te xanaa nekkuñu ci réew moo xam ne dañuy voté dimanche ba dimanche del si waat tamit maam yow itam dama bu fekkoon ni mm-hmm. bu fekkoon ni cent et quelques candidats moo am mm-hmm. te cent et quelques candidats yooyu yëpp yoon may leen ñu bokk sax dañ leen war a bàyyi ñu bokk xam lu tax xam nga nit dina am yéene ni man kat ci wàllum sante yéene naa ni suñ ma joxee réew mi nii laa koy doxalee keneen ni man nii laa ko gisee keneen ni nii laa ko gisee mais ki ñu fal dina am temps wu xool programme mu ñeneen ñi ni kii kat ay la yéwén ni mu wax ni moom la am yéene def ci li jëm ci wàllum paju fii ci réew mi bu ko joxe man moo gën li ma bébét kon un candidat kenn du ko empêcher pour mu wax li nga xamante ni jàpp na ni suñ ko joxee réew mi noonu lay doxee mais beneen yeneen candidats sax les cent et quelques candidats ñooy ñan lañ mais c'est parce que parrainage bi bi ñu dem di jël fiche niñ ni ko organiser baaxul ñi fa duggoon daanaka candidats indépendants yi mais c'est des ay jeunes yu taxawal ci mbernu ndakar yi la ay nit ñoo xamante ne dañuy ñëw rek jël fiche d'engagement ñoom ñooy nekk candidat bi ñoom ñooy nekk ñoom ñooy nekk représentant candidat bi parce que Macky moom moo amoon yéene def li nga xamante ni moom la bëgg a def. moo tax mbir mi du lenn lu dul Macky Sall dafa amoon yéene xool ñi nga xamante ni ñoom la bëgg a jonganteel parce que Idriss Seck sax dafa rëcc. Mhm. ci ñi ñëwoon recalé ci la bokk. Mhm. ndax euh, premier jour bi juróom benn parrainage lañ ko mujj a wax ni moo la des. waaw Ziguinchor xam nga loolu sax dafa nek ay mbir yu kenn mënul comprendre. mais loolu garaawul bi ñuy joxe résultat provisoire yi le président Idriss Seck était Mhm. mais loolu kenn ñemewu ko woon a génne ñoom seen jëm bopp. recalé mhm. candidat bu toll ni Idrissa Seck. waaw teg loolu. mais dama mhm. dañ ko doon recalé. expliquer ñu comprendre lu leer lañ ci am. xam nga bu ñu mujjee wax lan la. nañu fexe ba bisu élection yi su jotee. le candidat ni nii mooy ay bulletin de vote am nañu fexe ba mu nekk fépp ci Sénégal comme ni ñu defoon Ablaye Wade à Touba Idrissa Seck noonu lañ ko bëgg a def fi mu toll nii maanaam élection yi. Macky Sall moo buggul le candidat de Benno Bokk bakkaar bugguñu élection yi jaar ci yoon parce que xam ni peuple bi ci boppam dañ leen wan ginnaaw parrainage yi moo leen ko wan de ils étaient recusés par le peuple parce que soo demee ba capital bi mënoo fa am dix pour cent de parrainage ça devient très sérieux pour ñoom Macky Sall bu demee ba ma ne bu demee ba quadriller Dakar yow de xam nga ne munoo génn léegi dox 10 mètres te gisoo benn waxuma la car bu taxaw mais escadron bu taxaw démb banlieue bi yëpp amul sécurité man dem naa ci benn commissariat boo xamante ne bi ñuy def déferment dañu mujjee dem luy benn oto pour dugal ci ñi ñuy yóbbu ñi ñuy yóbbu xam nga yooyu pour lan parce que nee nañu ndakaaru moom foog ñu quadriller ko bu duñ fa mën a yegg léegi bu fekkoon am na benn musiba bu am fii tey cela veut dire que Macky Sall li yéen a mooy mooy moom na ut sécurité boppam ak sécurité njabootam ba kenn du mën a yegg ci moom léegi askan bi nga xamante ne ñoo ko faloon askan bi nga xamante ni seen xaalis lañu ñuy oto auto police la fayee policiers yi moom seen alal lañu jël dugal ko ci sécurité ñooñu ñu bàyyi leen ñu bañ a am sécurité dama foog ne lii ñuy def yëpp tegu woon ci yoon. gàmmoo moo ko gën soo amee un ministre de l'intérieur bu taxaw wax ni dina def bépp pexe bu mu mën ba yow doo perte ay élection kooku ku dem ak moom ay élection bàyyi ko mu organiser élection yi lu la ci def yaa ko tey mais ñoom wax nañ bu baax ni dinañ def seen kamtalay kàttan ba élection yi nu ñu mën a def ba def seen i nju njaaj gañe ko dinañ ko def mm-hmm. te boobu ba léegi ci la ñu nekk mm-hmm. Khalifa Sall ku nekk dégg nga ni ni dossier bi mu dugal biir conseil constitutionnel mhm. waaye man naka nga may laajee dossier ma déposer dossier cour suprême jël beneen casier judiciaire bu ñu wax ni ñoom jël nañ ko dugal ko ci ba pare ni la rabat d'arrêt n'a pas un caractère suspensif te lu yàggul dara dégg nañ fi ñoom seen bopp ñu naan le rabat d'arrêt a un caractère suspensif maanaam dafa mel ni loi bi daal léegi ni gars yi naan bu ñu araamalee lii tey bu subaa mën nañ ko daganal te loolu lu dangereux la. 88 628 05 05 88 628 05 05 salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ki nootu tudd ak fooy man li may wax Mamadou Ba maa ngi wootee Matam. Matam da nga bëggoon bokk ci jotaay bi. waaw dama bëggoon bokk ci jotaay bi. bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw ah, parce que euh, bro boobu toog noonu sama grand la. Uh-huh. sama boy la. Uh-huh. maam ñoom ñoo fowandoo sama maanaam lépp lañ defandoo daal. Uh-huh. Euh, gis naa ci moom talent binga nga xam ne xanaa fi mu day dem. gis naa ci talent boo xam ne buñ ko jàppalee day dem incha allah. parce que li muy def rafet na trop naaj na trop. te ko ñaanal tamit. Euh, li allah jaajëf waaw ko koy ziar waaw amul solo jaajëf ñu jaajëf sant ko gërëm ko moom Mamadou Ba doon ñu woowee ci diwaanu Matam bëggoon dugg ci bile jotaay mama bu ñu wéyee ci waxtaan wi ba tey situation politique bi surtout département Guédiawaye gis nañ ni seeni leader yu bari rawatina ñu nekk ci kujje politique gi ñu ngi leen di teg loxo est-ce que loolu ngeen doon xaar ci régime bi fi nekk pas plus tard que tey ci suba am na juróom eh, ak ñett ñoo xamante ne bi ay militants lañu bokk ci taxawu Dakar ñoom itam ils ont été cueillis par euh, les éléments de la DIC yóbbu leen fi nga xamee ni kenn xam loolu moom est-ce que jàpp ngeen ni li ngeen di li ngeen di dund nii xeeñ na neex. bon man daal li may mën a wax ci loolu mooy police ak gendarmerie. Mhm. ak les cours tribunaux là. Mhm. république bi xaaruñu woon loolu ci ñoom. Mhm. gis nga bu fekkee ni dañoo dem ba ñu jàpp ni état bi daf leen di utiliser comme cheval de bataille dama wax ni dafa mel ni opposition tey police ak gendarmerie ñoom la jàkkaarlool mais jàkkaarlootul ak Macky Sall ñun loolu loolu loolu jàngat boobu la ñu am. lu tax ngeen ndax xamul tax loolu. Mhm. ku nekk gis na fii li nga xamante ni xew na ci Prodac Mambay ñaa waxul ni yëf yi amul de dafa ne ba ma fay jugee man. Mhm. ba ma fay jugee nangam laa laaloon ci xaalis bi nangam fa laa ko bàyyee nañ ko laaj nga fa nekk. waa procureur bi lan lay xaar. pour auto autosaisir ci loolu ku nekk dégg na li xewoon kudd xam nga dafa am yoo xam te ne sax à dafa ñaaw dafa ñaaw ci gisin dafa ñaaw ci jëfin. ma ne poste poste waaw non xam nga dama ni mais du fi lu bees caageenewul ni dafa jaadu ñi ko doon def démb bu fekkee ne teguñu ko ci woon ci yoon. ñi koy def tey tamit dañ leen a war a ŋaññ xamal leen li ngeen di def jubul jaaduwul. da ngeen jàpp ne làq doom dóor doom la. non du ma li am ba am mooy. Serigne Bassirou Gueye la le procureur de la République. Mhm. na xam ne sénégalais yëpp ñoom ñoo yem ci kanamu yoon. Mhm. te gis nga nii muy doxalee nii dalul suñu xel ñun. te am réew nag boo fa nekkee ñu dénk la fa ay mbir day Ousmane Diagne de nawoon nañ ko ndax xam nga Ousmane Diagne dafay am jaar-jaar ak Ablaye Wade. mais chaque jour rek su ko président Wade woowoon laaj ko rek da koy wax ni ko lii nga xamante ni ñi nga àndal moom lañ bëgg du ma ko def muy bi fi caat waxee mag mat naa ba cim réew waaye mag. mooy wax safaan waaw mag moo xam dafa am téeméer at ba pare di wax safaan kooku taxul ñuy wax. Mhm. mais ñëpp xam nañ ni wax ji da waxu gaaral la woon. Mhm. mais Ousmane Diagne ci maanu téem wax dëgg yàlla bi ñu jàppee caat bi mu ko yóbboo dafa wax ni kii amuma lenn loo xamante ni maa ngi ko koy toppee. sëñ Bassirou Gueye na xam ni doole ci yàlla la dëkk te yàlla rek moo am doole sëñ Bassirou Gueye na wax procureur de la république lii nga xamante ne ñu ngi koy dégg ci réew mi te ñu dégg mu ànd ci ak pataral ñun ñi nga xamante ne ay citoyen lañu ñu ni la justice est rendue au nom du peuple ñu ngi ko ciy déglu te di ko wax ni foofu mu nekk dañ ko fa teg ngir mu yiir ñu mu aar ñu teguñu ko fa ngir ñun man de personnellement chaque jour su ma yeewoo damay wax ni que tey mën naa fanaane prison parce que lii ma gis ci Sénégal bu fekkee ni opposants yi lañ topp di leen wër di leen jàpp te man ma nekk un opposant damay jàpp ni suba wala ginnaaw suba mën nañ maa jàpp yóbbu moo fa ñu yóbbu morom mais loolu nag gis nga loolu ku deful waxul mën ngaa mucc ku deful waxoo mën ngaa muccut quand même waaye dama wax ni xam nga Sénégal yóbbu ñëpp dañoo def wala ñu wax rek laa jort dama jàpp ne am na ñu def wala ñu ñu jiñ ni def nañu wax nañu te ñu ngi leen fi bàyyi xam nga man waxuma ne Mame Mbaye dafa jël mais dama ne jiñ nañ ko dama wax ne Aliou Sall frère président de la République ku nekk xam na ni taxawaayam ci département wu Géejawaay du taxawaayu nit ku maanu parce que Aliou Sall heure boo déggee ñu ni débouché na benn nit rek da ngay dégg jox na ko oto jox na ko xaalis ci koo xamante ni démb ak bërkaati démb ñëpp xamoon nañ la ci ñàkk si ñàkk am dara tey boo fekkee ni képp koo àndal dañuy wax ni Aliou jël na diw jox na ko nangam may na ko oto may na ko nangam waaye ñun suñu xel warul tey ci kii fan lay war a jëlee waa ana of nag ana of nag kon dañuy wax ni justice bi fi nekk du justice boo xamante ne ñun wóolu nañu ko conseil bi yi nga xamante ne moom moo war a joxe résultat élection yi ñun dañu ko récuser wóoluwuñu leen xam ndax wóoluwuñu leen parce que ni ñuy atte dalul suñu xel waxuñu ko ña demoon ñoo ni mbir mi ni muy doxee am na foo xamante ni dafa sooxe. léegi ñoom si seen bopp ñu nangu ñu ni di la ñuy jubbanti. Mhm. lu dëng nag la ñuy jubbanti. bu fekkee ni ñi ànd ak buur lu ñu def jig na leen te ku àndul ak buur yat bi daal si sa kaw dama ni li jàpp Khalifa Sall téye ko ci kaso bi suñ ko toppoon xëy na sax dina jàpp ponkal mi parce que. ku nekk xam na ni diggante 2000 ak tey soriwul crédit bi ñu utiliser xam nga Abdou Karim Bourgi ku nekk xam na ko mais c'est les anciens milliardaires de 1940 du Sénégal. ñooñu ay 1940 lañu amoon ay milliards. bu fekkee ne da nga bëgg a rey sa xaj da nga Sall dara téyewu ko ci kaso bi. lu dul complot politique. Mm-hmm. léegi nag gis ngeen situation bi li xew xew na li Jamil wax. Mm-hmm. laa gëm. mooy. ndax jàpp naa ne jullit la te ku maanu la. mooy. mooy ba ñuy complot Khalifa Sall fekkee na ko te waxoon na ni Macky Sall doo ci am ndam kon tey xalifa dara téyewoo ko ci kaso lu dul complot parce que ki ko wax ni ma fekkee diw ak diw ak diw ak diw. lan nga tuddee complot. waaye dama ni ma état judiciaire def li muy def daan bi tegu. ñu daan bi am donte Rabat dara bi indi indi na coow tuuti terewul lii am am na nga ni. complot moo ci am lan nga man yeggu fan nga teg fan nga sukkandiku ba wax ni complot politique la quand même. dama yeggul ci Rabat dara mhm. xam nga ci lan laay njëkkee ci boo àndee ak ñun da ngay mucc soo àndul ak ñun doo mucc. CREI Ali Ndaw fan lañ ko démettre de ses fonctions en pleine audience SMS lañ ko envoyé. wan ni ko yow mooy mën foofu nga toog mën nga faa jóg parce que nekkatoo procureur CREI lu tax ñaata nit lañu limon ñaata nit la waxoon da leen di top du ma si musa dellu ginnaaw mais ñooñu tey ñëpp anañu ana ki fi jëndoon ay kuddu trente cinq mille francs xam nga ñun dañ fi nekk démb tey di soog a ñëw te politique yi si seen biir xamante nañ mais bu fekkee ne Macky Sall li nga xamante ni mi ngi koy yëkkati di ko teg opposition bi te ñi ñuy woowee ay kilifa diine ci Sénégal amuñu courage buñ ko woowee ni ko kat xam nga nit sooy atte yeneen mu jàngalee atte moo gën a jub mooy nga dimbali sa mbokku julit su bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ni naka la ñuy dimbale ku tooñ mooy ñu xamal ko ni ko dafa tooñ ki ñu tooñ ñu joxu ko dëggam. 88 628 05 05 salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ki noo tudd ak fay wootee. grand man fi woote woon léegi man la bro. waaw fi woote woon léegi depuis Matam. waaw. waaw man ma instant yii nii ay fan fan ñu ngi xaar clipam. Mhm. na def le tour rek ba génne benn clip parce que instant bi nii il mu génne benn clip connaître parce que ñun yéene xanaa da jàpp ni yaa ngi ci beneen eh, organ ñun de ci politique la ñu nekk ah la waaw ci politique la ñuy wax rajo Afia FM. waaw Afia FM waaw. ok boobu émission moo jeex nag. émission boobu moo jeex quoi. ah dafa waaw dafa jeex depuis quinze heures seize heures la woon. Ah, waaw. ñu koy jaajëfal moom ci diwaanu Matam lay woote muy Ousseynou xam naa émission yi jataay la jaawale mais terewul rek lépp ci biir kër gi la sotti ci ak def ci la mam nga ba léegi. dafa am loxo boo xam ne dafa nekk ci biir yoon ak yoonal non dama ne di lëñ bët xam nga bàyyiwul mu do yoon doxee ni ni mu war a doxee ñun daal gis nga yoon bi ci Sénégal mhm. bu fekkee yoon bi la ñuy wax yoon ñun wóoluwuñ ko maanaam conseil constitutionnel bi fi nekk wóoluwuñ ko lu tax wóolu wóolu leen ko ministre de l'intérieur te mu doxal li mu war a doxal quand même yow da nga jàpp ne doxal na li mu war a doxal mais ñi nga xamante ni xam nga yow tey bu la sa boo nekkoon un candidat sa jabar parrainé la yor carte électeur mhm. nga ñëw ñu ni la sa jabar parrainé wu la wala nekku ci fichier wala dafa def doublon. wala kila représenté ci ci sa ci gox sàngam dafa laa signal signal keneen. waaw ma ni waaw ma ni yooyu waxi lan la loolu du ay caaxaan maanaam bu fekkoon sax ñoom amoon nañu yéene atte ci njub booy da ngay jël jumtukaay yi lay may li ngay atte mu mën a jaar ci jub. Mhm. waxuñu ko ñi fa demoon ñoo ne gis nañ ci ay rëq-rëq ñu wax ni ñooñu da ngeen di yéex a wax du ngeen bàyyi ba jaasi di dal ba noppi ngeen di soog wax ni ba muy jël jaasi di gis nañ ko bi ngeen nekkee ci biir ngeen waroon wax ni ah ñun kat lii ngeen di doxalee dalul suñu xel génn wax ko bu ko defee yeneen candidat yi fa nekk au moins li ñu naan un homme averti en vaut deux dinañ am au moins xam ni que feekat niñ leen nar a attee kon da nga da nga jàpp ni société civile bi euh, complice lañ ci li xew. non du complice mais defuñu seen liggéey beneen bi xam nga ñi ngi wax ne dañoo bëgg ay élection yu ànd mm-hmm. ak jàmm. Mm-hmm. ku bëggul jàmm ñun mën nañoo dëkk ci réew mi amuñu lu dul réew mi suñu lépp nekk réew mi fii ci Sénégal ba pare ñuy bëgg réew mi tàkk bi tàkkee ki fi yor soxna yor fi ñaari doom yor fi sanday yor fi say mbokk eh, da nga leen mën a yanu daw. kon kay jàmm ñu ñoo ko gën a bëgg ku koy wax mhm. mais nag liy indi jàmm boo bëggee jàmm da ngay fexe ba taxaw ci liy indi jàmm gis nga Macky Sall yoon bii mu jaar du yoon wu baax te dama jàpp ni buñ ko ko teeloon a wax parce que nag même bu fekkee sax am na ay kilifa diine wala ay kilifa jàngu bi sax ñoom man luwee naa seen courage mhm. parce que ñoom taxaw nañ jël position wax publiquement mhm. mais suñu kilifa diine yi nañu wax ak moom ci kaw wax ci suuf dafa jeex parce que ñii mu ko seqal muy xalisi si muy karmis yi muy yeneen candidat yi nga xamante ne recalé na leen mooy ñun ñi nga xamante ne validé na suñu candidature te xam fi mu jëm ak ñun mhm. li mu bëgg a def duñ ko nangu loolu moom ma koy lan ngeen jàpp ne moom la bëgg a def non li mu bëgg a def mooy li mu tàmbalee def lan lay def mooy confisquer le pouvoir lan nga tuddee confiscation du pouvoir. xam nga la mooy confiscation du pouvoir. Mhm. mooy li xew Touba. déplacer ay électeurs. Macky Sall fi mu gis ni fépp favorable lu ko dina saboter élection yi foofu. Fouta ak Touba fu gën a sori. waa Fouta bu ñu mënee jot ay bulletins ci législative yi à dat et à eur ici ici. la moo tax ba Touba mënu koo jot. te Fouta fait cinq fois la distance de Dakar Touba. xam nga yooyu yëpp ay sabotage la bu ñu demee ba nga jël carte d'identité nationale jox ko un citoyen sénégalais ni ko yaa ngi nekk ci centre de vote temps bureau de vote nangam mu dem ca centre de vote boobu dem ca bureau de vote bi ñun ko sa tur newu fi bu ñu demee ba ngay jël ay électeurs ci biir centre de vote bi di leen déplacer bi defal ko ci carte d'identité am mhm. carte électeur bi ni ko bureau de numéro cinq yóbbu ko bureau de numéro vingt mais loolu yëfu lan la du sabotage lan moo dax waa Fuuta ba mu yaakaar ne moo koy gagné te loolu sax dañ na parce que Fuuta xiif bi fa nekk ak coono bi fa nekk ñëpp gis nañ ko loolu moom won woonoon na mais wóni na moom xam na ne parce que su demee ba Podor mhm. ñu ngi rimer ciel et terre pour Aïssata Tall Sall fekk si leen mhm. parce que xam na ni élection yi favorable leen bu ñu foog ne ñun dañuy dañuy dañuy tere élection yi am de ñun ñoo ko gën a bëgg élection yi am xam nga mi ngi war di inaugurer ay chantier yu pareegul. Mhm. parce que xam na bu Macky moo la gën a xam la xew parce que mooy renseignements généraux xam na ni Sénégalais yi ak moom benn ñaar xam na ni il sera dépossédé du pouvoir. léegi nag lu tax nga jàpp ne sénégalais yi ànduñu ak moom te fu mu dem fees dell ak aw nit fu mu ti dem nit ñi fekk ko fa quand même. non dama ne mhm. xanaa xamoo société yi def import export. loo tuddee import export mobilisation Ndiaga Ndiaye. mais léegi rek gis naa seen benn confrère sax boo xamante ne mi ngi yor benn kii gars naan car rapide yi ñu ngi ñëw ñu ngi jël nit ñi ñu ngi yóbbu xaw ma fan lay teg benn pierre mais loolu moo am loolu moo am import export lay def mais nag xam nga loolu bu fekkee ne yeewu ci ñi fi jaaroon maanaam ses prédécesseurs mhm. gisoon nañu loolu jigu leen te Macky xam na ni que sénégalais yi wan nañ ko ginnaaw ndax li mu waxoon sénégalais yëpp defu ci dara. lu tax nga ne li mu waxoon Sénégal lay def ci dara. bourse sociale yi mi ngi dox. emploi des jeunes li mu ciy waxoon nee na nee na 500000 la waxoon fi mu toll nii pratiquement euh, dem na ci trois quarts bi. xam nga bourse ak yeneen ak yeneen i xamante ni mu ngi koy xotti fépp ci réew mi ngeen di doxul. banlieue rek boo fa duggee gis ne ni mu tàmbalee def. dama la wax dama la wax ñaari affaire Macky dafa am euh, loo xamante ni natt la bu dal ci kawam mooy Wade dafa am ay projet yu mu fi bàyyi woon. yeggali projet yooyu tëna ko beneen bi gis nga am réew bu ñu demee ba waxuma la benn nit mais famille lëmm nga ne leen deux cent soixante dix francs nga leen di dimbalee par bis muy vingt cinq mille francs tous les trois mois cela veut dire que deux cent soixante dix mille francs ngay may bi dimbali leen ko par bis deux cent soixante dix mille francs soo amee un nourrisson chez toi maanaam xale hmm. buy nàmp deux cent soixante-dix francs munu munu koo dundal dama wax ne manque vision moo tax ñu jël milliards yooyu yëpp def ko ci pour bourses familiales yi te jëriñul Sénégalais yi dara. 88 628 05 05 88 628 05 05 salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ki noo tudd ak fay wootee. waaw kii de. Oustaz lañ koy wax Aliou Sow marché Grand Yoff. nga baal ma yëkkati kàddu gi tuuti imam ma ne kii lañ koy wax marché Grand Yoff. ràññee nañ kàddu gi kay mu gën a jóg la ñuy wax. waaw maa ngi wax ci kaw de xanaa nga bëgg fa yuuxu. ayca yaa ngi yaa ngi ci jataay bi kon. waaw ah, kon baax na. ñu dalal euh, responsable politique la ci euh, euh, parti bii di réew mi bokk ci première tranche bu commune bu Golf Sud naka nga jàngatee waxtaan wi. waaw avant tout dañuy nuyu. waa rajo Afia bi yëpp mhm. di nuyu suñu imam yi waaye tamit di nuyu suñu waa jàngu muy église mhm. euh, di la di dalal maama moomu tamit euh, biir Grand Yoff mhm. di déglu waxtaanam franchement boobu ba tey yaakaar naa ni ñuy wax lépp gong su fekkee ne kuy déglu te yàlla rek tax ak ku réew mi ñor yàlla rek tax ngay dégg man de franchement li ñuy wax noonu lu ci bëri lu tegu la euh, Birahim waaw Euh, ñun daal xamatuñu fu ñu jëm pour ëllëg parce que dama yaakaar ni tey jii soo seetluwaatee ñi nga xam ne ni ñooy politique ñëpp mhm. koo ci gis rek sa quarante cinq ans tegu na wala euh, li ci manqué tuuti la mhm. te quarante cinq ans nit boo ko dundee ci àdduna suñ la ko waxee ak suñ la ko waxul yëpp yàlla ko ci àdduna bareetul mhm. léegi lu ko ci jar ah man dama gis ne doomu aadama waaw bu fekkee ni ci la dëkk mu tekkee fi liggéey fi ba ñu ràññee ko suñu wootee ne dañoo def lu ñëpp bokk ku bëgg yaakaar naa ku ñu ràññee xàmmee la nga góorgóorlu ba takk ndomb premier ministre wala nga góorgóorlu ba takk ndomb euh, euh, euh, maire mm-hmm. wala nga góorgóorlu ba ba takk ndomb DG mm-hmm. yaakaar naa ni kooku am nga loo teg ci réew boobu waaye nag yaakaar naa ni para parrainage boobu pièce bi ñu leen tegaloon la pour éliminer yenn adversaires yi ñoom tamit ñu nangu ko nañ ko nangoo noonu tamit su élection amee tamit ñoo lay demaatee mbir mi nag mooy takum kanam la borom moo koy fayal ko mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne ni ñoo làngu politique bi te siège bële ñu soxla ko ni ko sisi toog ñu ko soxlaa neneen mm-hmm. ko jaral man de politique bu ma ñoom parce que du àdduna du yàgg ba mu nekk président waaye bu ma leeroon ni tey jii bu ëllëgee ma nekk président comme moom ñu liggéeyal te ñu nekk seen biir gaay gars yi xàmmeewuñ leen loolu moo ci xaw a métti waaw ñun nag gars ñoo ñu mag de waaye ëpp ñu xaalis ëpp ñu moyen waaye ëpp ñu ñu xel mhm. te bu ñu demee ba ci kanam dina ci bari ñoo xam ne ñu bëri dinañu rocceeku wuyu ji ko man nag li ma doon ñaan muy conseil constitutionnel ñi fi ne mhm. ak euh, ñi nga xam ne ni ñooy yor kaaraange réew mi mhm. nañuy chaque jour di bàyyi xel askan bi mhm. nga xam ne ni tey jii ñun ak ñoom la tey ñun ak ñoom la ëllëg politiciens yi tey jii ku ci ne mandat nga fi am te mandat bi mënul yàgg ba dem bëri bëri sept ans la douze ans la mu jeex nga dem mhm. te histoire da topp ba faw kon ku fi àtte dara lépp looy àtte bul àtte pour lu neex nit yi àtteel te yàlla rek tax ci ëllëg man daal noonu laa gisee tey jii nag euh, li ñuy immigré bëri na liggéey na lu bari teg nañ ci bët waaye sénégalais bu naan dëkku da yàlla rek tax dar ci alquranul karim yëpp ci Senghor yàlla may na ke fekk nañ ci Abdou Diouf nañ Ablaye Wade mhm. waaye ni dëkk bi méttee billahi wal kitab même ñoom waa affaire bi xam nañ ne ni mu méttee mosu ko méttee ci li indi loolu nag Ibrahima waaw ma ne li indi loolu nag waaw mooy moom société yi nga xam ne nii tey jii ñoo ñun ñun ñoo ko faloon ñun sénégalais yi def ñu fi bàyyi dem jëli ay tubaab ay chinois tubaab amu fi sëriñ amu fi bàjjan amu fi maam amu fi dara lu mu fi jël da koy jël yóbbee dëkkam defar ko kon nag man xamala laa jàppee li mu def lan la mooy nga ñëw jàngi daara ba ñibbi bi grand yow jëlal ay doomu Grand Yoff jàngal leen pour ñu ëllëgee ñu nekk ay imam nga jël ay doomu Fuuta ay doomu Ndar ay doomu Tëngéej bu ëllëgee ñooñu dañuy ñibbi bu ñuy ñibbee foofu la ñuy defari waaye duñ defar Grand Yoff mhm. man noonu laa gisee mbir mi looloo moo tax nag réew mi nekk kon nag bi te a xam ne ni sénégalais nit waaye nag liy mbir mi mooy ñoom parewuñ pour dem élection li ñu pare mooy bis bi bu jotee defar nañ li ñuy defar a pare nit ñi ñooy xëy rek di man su ma nekkoon gars yi nañu delloo mbir mi yàlla te bañ a xel ci élection parce que élection ñoom def nañ ko ba pare nga baal maa ko sant ko gërëm moom oustaz Alioune Sow di responsable politique bokk ci xalifiste yi fii ci diwaanu Grand Yoff mam dégg nga tuuma yi mu teg ci opposition bi nee na ñaara fi nekk match bi moom en différé la joué nañ ko ba pare waxtu waaye jot rek ñu daal di soobu ci eh, jogante yi def simulation naka nga jàngatee loolu d'abord. waaw mais xam nga li tax mu wax loolu mooy doxalinu nguur gi xam nga bu fekkee ni Macky Sall bi ko joxee Sénégal ba léegi ci fi mu déparé ak Karim Wade jaar fa ak Khalifa Sall conseil constitutionnel bi nga xamante ni nii man dama jàpp ni c'est le bras armé comme ni mu ko doon waxee naan que l'administration territoriale est le bras armé de de l'État man dama jàpp ne moom son bras armé police bi la gendarmerie bi la ak conseil constitutionnel. bi nga xamante ni non même rek ku ci nekk sa rôle ngay joué quand même. non xam nga ban rôle la ñuy joué. bu dee bu bu dee force force de sécurité yi garantir sécurité population bi moo ko tax a jóg. bu dee conseil constitutionnel aussi lu jëm ci wàllu euh, euh, organisation élection yi ak équitabilité moo ko tax a jóg. xam nga désorganisation de l' élection. ak organisation de l' élection bokkul. xam nga une organ une élection organisée du mel nii. gis nga quand on dit que la justice est rendue au nom du peuple et que ñu gis que chaque jour bu ñu une décision de justice peuple bi dafay reçu récuser cette décision maanaam peuple bi bu justice bi waxee rek dañuy wax ne ñun d'accord ñu ci lu ñu àtte quatre-vingt-dix-huit pour cent nag population bi laa la wax de boo taxawee am boo defee taxaw seetlu xam ne Macky Sall ñii ànd ak moom ñëpp dañoo noppi jamono ji ñii xaru rek ñooy wax te ñiy wax sax nag dañoo mun a ñàkk wax parce que xam luy problème bi mm-hmm. daf ci am ñoo xamante ni def nañ fi ay njombe yoo xamante ne fii ci réew mi bis bu Macky Sall ñàkkee élection fii ñoom dañuy xam ne lii de sen dee sax moo ko gën a sedd ndax Macky wax na ko. may ma rek ma ñëw xam nga ga xam nga damay non may ma damay bañ sax di di sauter du coq à l'âne dama la bëgg a leeral dara. xam nga la ñuy wax organisation de l' élection mooy bu ñu demee ba ñu àtte ba pare 2012 la ko conseil constitutionnel commencé bi ñu waxee da wax naan ay dispositions transitoires bu ñu waroon jël. sur le mandat du président de la République jëluñu ko alors que c'est faux on savait très bien que Wade allait être candidat avant que sax conseil constitutionnel di wax. mais ba tey conseil constitutionnel mu recalé parce que li ñuy def sax dama jàpp ne li ñuy def sax dafa nitewul xam ndax nitewul bu fekkee ni yow da nga bàyyi Karim Wade ak Khalifa Sall ñu jàll parrainage bi te sénégalais yu bëri xam nañ nit ñi li nga leen naral mooy. lañ ñu woon ñamalaakaa wuy sa yaay mu ni suma yaay du ma woowee paaka li nga làq sa ginnaaw mooy bu ñu jàllee lii da ngay rakale ñële ba ñële coow ba riggal ñu teg ci ay fan nga rakale waat nii invalidation de la candidature mais est-ce que li organisation la wala désorganisation la parce que ñi ëpp ci candidat yi ñi recalé yëpp d'accord ñu te génnee nañu li nga xamante ni mooy li ciy dëgg te nag ay la yoween ñoom ñu am dëgg bu ñu demee ba jàpp nañu ni intimider sénégalais yi mooy bi ñu génne la liste provisoire mooy ñu organiser làmb ci même bis bi pour bu ñële dee yuuxu ñoom ñu jaar ci suuf génnee liste la liste des candidats la liste provisoire des candidats dama jàpp ne ñooñu li ñuy def saxu njëme wuñ ko te wóolu wuñ ko dama ni gis nga àtte ku maanu moo koy def lii ñu gis ci Sénégal police di ko def gendarmerie di ko def ñu dalul suñu xel. xanaa loolu li ñu wolof bi di wax naan pataas sama gën a ñàbbe kuñ ci yóbbu police bu sa avocat baaxee waroo fa fanaan damaa jàpp ne diw wóoluwuma ko ndax doxalin bii muy doxal doxalin ne moom moo dalul suma xel maanaam Cheikh le ministre de la justice mhm. doxalinam man dalul suma xel am naa si droit wala aw ma si am nga ci droit Macky Sall ni mu yoree Sénégal. Mhm. jubul jaaduwul ndax moom dafa wax ne am na huit milliards dañoo xam ne deux mille bi muy ko abla Wade di nommé directeur Petrosen te ñëpp xam ne loxo Idriss sek daf ci nekk parce que Babacar Gaye moo ñëw fekk Macky toog a Pape Samba Mboup mun ko Idriss Seck jël na une décision personnelle mun ko nommé directeur de la Petrosen boobu ñi xam Macky Sall xam nañu yorul woon dara am indi waaye bu waxee man fonctionnaire de l'État la am na huit milliards ci diggante bi Ablaye Wade moo ma may Ablaye Wade ni ko mayuma la te mu ni yi dañ ma may bokku ci yow mi sa alal amoo luñ la may xanaa lu mu gàtt gàtt am nga yére bu la sa ab soppe kon xam nga lu am dama wax ni boo demee fora di fa fekk ay nag mais ñëpp xam nañ ni seeraas la ñuy mujjee yoon wi nga xamante ne jaaral nañ ko Karim Wade pour l'éliminer politiquement pour qu'il ne soit pas électeur man doon naa comprendre sax Macky Sall wax ni que saisir nañ Interpol Karim Wade fu mënti nekk dinañ ko jàpp indi ko ci réew mi mu fay xaalis Sénégal mais tant que mi ngi mën a toog foofu moom bu mu ñu fay waaye bu duggee fii de dinañu fay waaw loolu yow wax ju est-ce que Macky Sall dafay servir Sénégal wala dafay servir boppam dañu wax ni li xew ci Sénégal képp ku fi nekk kilifa diine wala kilifa aada ta nga maanu war nga xam ni lii ni yoon doxee baaxul te dafay yee fitna. lan nga tuddee fitna. xam nga la mooy fitna. nit ñaa ngi dox seen yitte nguur gaa ngi doxal li mu war a doxal ku jë politique gaa ngi def li ñu war a def yee fitna mën na fee sori. dama dama wax ni boo sàccee. 88 628 05 05 am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ki noo tudd ak fooy wootee. Ibrahima maa ngi wootee parcelle. Aïcha yaa ngi ci biir jotaay bi da nga bëggoon joxe sa xalaat. waaw vraiment maa ngi remercier nekk si plateau bi bu baax. c'est quelqu'un qui vraiment ce qu'il dit. Mhm. vraiment mille fois mille fois vraiment. je m'arrête là quoi. ñu koy sant di ko gërëm moom Ibrahima la wax la tudd ma ngay wootee ci diwaanu Parcelles Assainies du ñàkk euh, maam xam nga ko ndax. ku wax golfe sud xam ni parcelle am na une partie boo xamante ni bi ci biir golfe sud la nekk. waaw xam nga nag politicien moom dafa li ko dal seddul. Mhm. Euh, léeg-léeg nit ñi dinañ lay xam mais ñu ci bëri doo xam mais ñu ngi koy gërëm ci woote bi. Mhm. dama nekkoon ci di wax ni. Mhm. ku sàcc mbaamu géwél nga jaay ko ay lawbe. bu mbaam ba feeñee. lu mu gàtt gàtt gàtt war ngaa séntu ñaari fani coow. xam nga ku jàpp ci xelam ni. nit ñi ñi ngi dox seen soxla jàmm am na. gàtt xel weesuwut loolu nga baal ma ci wax ci parce que xam nga ni xel réew mi fi mu jëm baaxul fi Sénégal jëm baaxul man nag maa ngi woo doomu géejawaay yi ndax keroog bi ñuy inauguré jumaa ji li ma fa gis metti na suma xol ci ay doomu géejawaay yuy xeex ngir ay deux mille francs deux mille cinq cent yu ñu leen jox nga doomu géejawaay yi bu ngeen demee ba nit ñëw taxaw ni doomu géejawaay béyee ko gën a seer njëg ndax bay jarul juróomi téeméer te ku leen jox juróomi téeméer. ñu topp la boo demee Sandaga booy ambulant. nga def séminaire gouvernemental 2011 gis nga bat bi ñeex banque africaine de développement. Mhm. la banque cohésion et la banque française mhm. du ñu financé woon l' de la VDN bi da nga xamante ni communauté Layène bi dañ ci opposé wu woon mhm. parce que boobu am na si benn kilifa boo xamante ni amoon na. ay problème mhm. te nekk foofu ak Ablaye Wade mhm. mu instrumentaliser woon jeunesse bi ñu bañ lii tey ñu nangu tey loolu moo tardal extension l' de la VDN mhm. l' extension de la VDN nag fii ñu ko yemale jëmu fa woon xam nga extension VDN fan la jëmoon Saint-Louis yu la jëmoon ñun suñu weccet la ñuy laaj Macky Sall soo demee la route des Niayes deux fois deux voies bi ñu wax dañ koy def BTR bi BRT bi bis rapid waaw mani géejawaay dafa tardé juróom-ñaari at travaux yi ñu dote woon géejawaay yëpp Macky Sall bi mu ñëwee daf ko tardel parce que da ko utiliser à des fins mais malheureusement pour lui comme que dafa amoon tension budgétaire dëkk bi am euh, jànkoonte ay jafe-jafe xaalis la mu bëggoon yàlla suñu borom sottilu ko parce que dafa bëggoon bu ñu demee ba ñu jub élection mu ñëw nii koy defar déjà sax tëli bi nga xamante ni moo jugee première garage ci génn si Elisabeth bi Aliou Sall ñëw na teg fa xeer bi. Mhm. léegi mu am ñaari parce que dañ ñoon dañ koy commencé. Mhm. cela veut dire que Guédiawaye ak Macky Sall Guédiawaye dafa tardé waa Guédiawaye xam nañ ni deux ans wu Ablaye Wade moo gën vingt ans wu Abdou Diouf si ñoom gën quarante ans wu parti socialiste gën sept ans wu kii donte Ablaye Wade nag ànduma ak moom bokkuma ak moom parti. Mhm. mais wax dëgg yàlla Sénégal daf ko ameel njukkal li ko dal waroon na ko dalee réew mu ne bi mu wàccee Kenya sax dañu ko doo ñibbi da ngay fanaan te dafa transité woon rek ñu ko doo ñibbi da ngay fanaan ñooñu ñu ngi koy delloo njukkal suñu demee ba un ancien président de la République du Sénégal ñu xañ ko mu dugg ci réew mi moo ak njabootam ñuy tol talaan bu tey ñu ne jabar ji ñëw na suba ñu ne ginnaaw suba dina ñëw te ñu xam ni fii ñu dëkk ndax Wade moom ba Chine doo fa dégg ñu sant Wade mhm. ci réew mi lañ dëkk ñu ngi ñaan président Macky Sall na delloo si xelam mhm. te xam ni réew mi ñëpp a ko bokk mhm. bu ko fi nit ñi ëppalewul ëppalewu fi kenn Macky bi mu ñëwee Sénégal li mu fi indi ak tey loolu mosuñu ko dégg dégg nañu ànd ak moom saaga toute une communauté wolof fii ci Sénégal ñun mosuñu xam loolu bu ñu demee bay wax ay vote ethnique te ñu xam le indi génocide rwandais hutu yeeg tutsi yi ñu dem bay dégg loolu Sénégal dañ ko war a dénoncer jusqu'à la dernière énergie donte nag suñu formation politique yi dina ci am ñoo xamante ni kat ñoom donte ci xeet boobu lañ bokk d'accord ñu ci loolu parce que barki Demba Ndiaye Mamadou Ibra Kane wax na ko Aïssata Tall Sall nee na ko nit nit ay garabam dérangé wul kenn mais bu ñu waxee net da ko bandoom ñëpp mer lu tax loolu qu'est-ce qui se mu ne ko bu fekkee ni dafa am benn xeet boo xamante ni dafa jël li ëpp doole ci nguuru Sénégal mu féetewoo ko bàyyi yeneen xeet yi dinañ dem ba loolu dafa jur fiiraange loolu moo tax ñu koy ñaan moo xam ne Sénégal Sénégalu ñëpp na gis nga liste bu exhaustive dressé buy wane ni daanaka Sénégal entreprise ak directeur général bu état bi ka fa nekk ci ba alpulaar la c'est donte man mi di wax ak yow nag maa ngi dëkk kaas-kaas fuuta mais loolu kenn du d'accord ci loolu bu ñu demee ba tey ñi ànd ak beneen communauté gis seen doom nekk élect nekk candidat ñu jàpp ne moom lañu war a jàppale ki may du ma tudd ñëpp xam nañ ko le candidat qui est sudiste boo déggee ay mbokam dañ lay wax ni la ah xeet bale ñi ngi jàppale seen mbokk ñun itam suñu mbokk la ñu jàppale. Mhm. maa doon def parrainage dama dugg kër goo xamante ne ba communauté boobu moo fa nekk mais loolu lañ ma wax de suñu doom la ñuy jàppale ndax xeet bee ñu ngi jàppale seen mbokk loolu kenn musu ko dégg Sénégal. finalement kon fu réew mi jëm. dama wax ni Macky Sall jëlee ko ci bopp réew mi fi mu toll nii dafa nekk urgence parce que Macky ci bopp moo dem ba nekk danger pour la Sénégal. loolu ku nekk xam na ko. nan nga jàppee ni danger la ci réew mi moom bi fi nekkee ba léegi mi ngi mi ngi dox li mu war a doxal. déedéet dama ne bi mu fi nekkee ba léegi. Hmm. la gis yoon àtte ñëpp ni d'accorduñ ko. Idrissa Seck waxuma ko de ma dikka bu moo ko seetaanoon yoon faagaagal ko te loolu ñëpp fekke la Abdoulaye Wade dafa ne il a été accusé e ces accusateurs ne peuvent pas fournir de preuves dañ ko takkal dañu ko takkal mënuñoo indi preuve atteinte à la sûreté de l'État lu ne ñu wax détournement de deniers publics chantier de Thiès parce que Sénégal aussi presse bi nañu def attention presse bi dafa am rôle fondamental bu mu war ci élection yi parmi vos confrères il y a beaucoup de vendus. loolu moom loolu moom. da koy wax feneen mais pas bi antenne ndax li li war te métier taskat xibaar di ci nekk ñu ngi ci. non du ma ni ñëpp muy pouvoir comme opposition ku ci xewle dinañ dem jëli say xibaar ñëw def traitement bi def diffusion bi kon ana fan nga bëgg a fan nga bëgg a tuddee fan nga ñu bëgg a sax ay xar laa laa ko mën a tuddee. waaw léegi euh, yow sama nijaay nga xamoon sama nijaay Birane la tudd. léegi dama lay wax benn affaire. mooy. dégguma tubaab nag mais tubaab laa làkk il y a beaucoup de vendus là waxuma ce sont des xam nga bu mënoon ñi ëpp ci ñoom de. ma ne waxuñu ko ñi ànd ak ñoom ñoo ne ñoom am nañu ay second couteau ci biir presse bi du ñu du suñuy wax du ma tudd turu rajo bi mais gis nga fi benn télé boo xamante ne nii dañuy def émission jël benn nit koo xamante ne daanaka man jàppee wu ko sax ku ànd xelam teg ko plateau. di ko invité bis bu ne muy saaga opposition bi xam ngeen leen seen ay confrères lañu sa turandoo moo fa nekk pour bañ a tooñ ndax man ragaluma tudd sax télé boobu wala rajo boobu mais pour vous dana pour ne pas vous gêner ñu ni seen ay antenne lañu la tuddee mais yéen xam ngeen ni li nga xamante ni ñu ñenn seen confrères yi ñu ngi koy def kenn rafetlu wu ko te loolu baaxul. sénégalais yi bi Sidi Lamine demee li tax ñu jooy ko rek mooy lu nit ñàkk a d'accord ak moom ñàkk a d'accord ak moom ay la yéwén heure bu dëkk bi na basculer dans le chaos dafay taxaw jël position dem ci côté peuple bi taxaw far wax ba jàmm dellu si te foog naa ne ñun ñëpp loolu moo ñu war mais bu fekkee ni dañ lay utiliser pour noyer l'opposition gis nga traitement de traitement de l'information bi nga xamante sax presse bi ñu ngi koy def bu opposition bi day def ay activité politique da ngay gis ni dañuy jéem a noyer l'opposition déedéet déedéet. non mais loolu moom leneen nga ciy wax mais pour dem jëli information rek traité. kaay kaa ma jox la benn exemple traité diffusé. kaa ma jox la benn exemple organe boo jàpp opposition. kaa ma jox la benn kaa ma exemple. xam nga traitement de l'information da ngay taxaw sur l'essentiel. Mhm. xam nga Khalifa Sall suñuy waxtaan ci bu ñu demee ba ne le rabat le rabat d'arrêt n'a pas un caractère suspensif dama foog ne. booy traité information bi ci l'essentiel sur le rabat d'arrêt ci ngay taxaw mais xam nga la mooy problème bi du ma ne du ngeen traité information bi de mais dafay mel ni que li nga xamante ni moom mooy li ci ëpp solo dangeen koy cof rek dem. non. Birame non loolu moom leneen lan ci wax non je te comprends. leneen la ci wax bu ñuy waxtaan ci doo nekk à l'aise mais nag man daal li ma bëgg wax mooy. ñi nga xamante ne yaa ñu jàngal suñu métier benn. non jàngal ñaar ba ñu ko waree def dañ ko war def ni ko war a defee kon bu information ñëwee du yow yaa ñuy wax ni ñu ko war a traité quand même léegi nag li li li li war ci information bi mooy collecte traité diffuse lépp ñu ngi koy def quand même. non dama ne xam nga loolu buñ ciy waxtaan duñ ci mën a juboo ndax. doo nekk à l'aise man mi la koy wax sax du ma nekk à favori seen ay antenne mais dama xam ne tam presque il foog ñu brosser lool rek wax ko parce que ñoom ci seen bopp wax dëgg yàlla ay la yoon bu jàmm day am ñoom dañ leen a séntu ñu gunge ci loolu beneen bi mooy ñi nga xamante ni war nañu mën a taxaw waxtaan ak Macky Sall pour mu delloo si xelam mhm. kenn jiituwu ci suñu kilifa diine a kilifa jàngu bi église bi nag donte man jullit laa dama leen def mention spéciale parce que au moins ñoom ut nañ ay superviseur ñoom am nañu courage yu taxaw xam ni que lii fi mu jëm baaxul nañ ko arrêté malheureusement pour certains de nos religieux seetaan la gën a man euh, non ma ne daf ci bëri sax si ñoo xamante ni nguur daal dama jàpp kilifa diine doo jaxasoo nguur ba yegg ak moom fenn fi parce que waxoon naa fi ci benn émission bu ñu ma invité woon man kiy présenté émission bi kuy àtte du far gis nga opposition bi position bi ñu jël arrangé wu leen mais dañoo jooy maam Abdou dañoo jooy kilifa diine yu bëri yoo xamante ni Abdou Diouf bu dugaan Tiwaawan wala mu dem Touba gisee ak maam Abdou ak sëñ Abdou Lahad bu génnee kanam gi dafay changé le code consensuel de 1993 lan moo koy indi ndax ay kilifa diine ñoo taxaw wax ak moom. Mhm. xamul tax ku mel ne maam Abdou wala sëñ Abdou Lahad dañuy jël position bu radicale léegi wax la dëgg ci kaw ñëpp dëgg ko buñ la waxee ci suuf ndax buur yàlla moo koy tànn. Mhm. ñun mu neex ñu mu naqari. Macky Sall mooy suñu njiit mooy suñu kilifa. Mhm. man de sama tëdd nelaw ba yaandoon ci moom laa ko yaakaar donte nag xam naa ne mënu ko garanti parce que mën na am tey sax du ma fanaan sama kër ndax bu ma fi jugee am na feneen fu ma war a dem. parce que loolu moo dem ba baaxatul xam nga dañu waroon encourager jeunes yi pour ñu def politique mais ñu dem politiciens dañ ci am part de responsabilité bu mag. Hmm. gis nga peuple bi nekku ne dañoo bañ a génn xeex mais ñi ñu war a gunge lañu wóoluwul. justement sànq benn ci auditeurs yi wax na ko. responsable politique wax na ni ci biir opposition bi am na ci ñoo xam ni ils sont mandatés par le pouvoir loolu doyul non dama ne. nit nit sàccee wuub ñëpp daw àndandoog yéen ndekete ki ki leen di sàcc ci seen biir la nekk. waaw xam nga li am solo mooy man souveraineté du peuple bi laa gëm seul le peuple est souverain xam nga lu ma gëm mooy même sama leader bi ma àndal su demoon suba ni dafay jàppale ji Macky Sall donte loolu du am dama jox exemple. loolu du tere sénégalais yi li ñu bëgg a def ñoom loolu du leen ko teree def. ba ngay a en 2000. mi ngi fàttaliku Jean Paul Diaz. Mm-hmm. Ousmane Ngom. Mm-hmm. professeur Iba Der Thiam. Mm-hmm. dem si yàlla si Djiboka. toute la grande classe politique de l'opposition sénégalaise ils ont soutenu le candidat Diouf mais terewul sénégalais yi décidé. Togné 2012 toutes les grands délinquants les grands les bandits de grands chemins politiques ils ont soutenu Wade mais terewul le peuple a décidé. ces bandits de grand chemin nag mooy tey jii ñi dem fekk ji Macky parce que ñoom pouvoir rek moom moo leen intéressé Wade nag fi ko Macky Sall jaarale ba yóbbu fii doomam moo naxari ñëpp te sénégalais yi lu leen naxari mën nañ ko faj dama jàpp ni képp koo xamante ne danga nga nekk tóob wala nga infiltrer opposition bi dama jàpp ne c'est peine perdue parce que dama gis Macky Sall plus que muy am ay transhumants plus que dafay gën a nekk ci situation bo inconfortable xam nga ko am parti bu toll ni parti socialiste am parti bu tol ni AFP am parti bu toll ni PIT maanaam parti yi ëpp doole Sénégal jàppale la xam nga yow soxlaatoo parrainage pour empêcher ay candidats ñu bokk. mais la moo tax muy indi parrainage bi. da nga jàpp ne dafa ñàkk wóolu boppam. mais Macky ñàkkul wóolu boppam ndànk sax. ak bilan bu élogieux bi muy tagg suba ngoon guddeeg bëccëg loolu rek war na ko mën a fal xanaa. bi wax ma ci benn Macky mënoo ma wax benn chantier bu mu inauguré yi mu moomul sax laa de boo xamante ne pare na boo demee aéroport bu Diass peintre yi ña nga fa ña ngay peinture ba léegi foog naa ne nawet bi bi aéroport bi inondé ba piste beeg yëpp ñëpp gis nañ ko mhm. terre bi ñi koy inauguré inauguré tëj inauguré tëj inauguré tëj. inauguré nañ sax ba dañoo bëggoon inauguré Masaalikul Jinaan bi def nañu lu ñu mën pour ñu inauguré ko mais sëriñ bi moo empêché lool parce que jàpp nañ suñ ko inauguré ñoom dina ñëw nii ñun kat def nañ ci lii joxe nañ ci lii joxe nañ ci laa pour ñu mën ko boole si seen bilan mais xam nga ni Macky arène nationale bi muy defar ñàkk xam-xam weesutul lool ndekete chinois yi mu koy defar ñoom lambi chinois la ñu defar defuñu lambi Sénégal. lan nga tuddee lambi chinois. ah lan nga tuddee lambi chinois. xam nga géew bi. Hmm. man tax sama yaram day daw daal maa ngi daal wax dëgg yàlla. xam naa ne amul amul eh, eh, mama eggalil foofu lan nga tuddee lambi chinois. non lan la moo tax. géew bi la géew bi niñ ko defaree. waaw géew bi mooy géewu chinois. moo tax Balla Gaye ak Modou Lo bëriwuñ fa. léegi ay mbapat lañ fay def. gis naa keroog ñu organisé fa benn mbapat. Mhm. géew bi mooy géewu chinois. mais loolu mooy dëgg di nee nañ mur de sécurité bi baaxul parce que dafa gàtt xam nga chinois yi dañoo gàtt dañoo mel ni man. Mhm. xam nga ñoom seen dëkk boo defee mur bu toll nii duñ ko mën a tëb. Mhm. xam naa nag dañoo foog ne ñoom siin lam lamb chinois daal lañ defar te chinois sax seen culture bokku si tëbi miir mhm. mais daal Macky xam naa ne buñ ko de indi ti war na ut ay ingénieur wala mën nañ maîtriser nañ maquette bi ñu xoolal ko dafa def ay dépenses yoo xamante ni daanaka mooy jël xaal sànni ko ci fenêtre parce que yow mos nga gis un président de la république buy dem une inaugurer chantier ñu koy sànni ay xeer mais ce qui s'est passé à Rufisque est inadmissible bu fekkee ni Rufisque dañu war a bénéficier wu ci terre bi nga ñëw foofu askan bi jëli xeer ay saa yi nañ xoolaat yëf yi léegi nag maintenant que le boo demee di allez le vin est déjà tiré waaw il faut le boire non mois je ne bois pas du vin du la façon man gën. <laughs> non anam la rek. waaw mais dama ne li ma bëgg daal wax mooy. Mhm. Macky nañ ko fi jëlee. parce que bi ñuy voté référendum bi. dafa am lu mu waxoon. Mhm. dafa ne nee wii di ngeen di wooy. wii wii ji ci ciy toog. waaw te foog naa ni fi mu toll nii ñun romb nañu wooy wuyaayoo ci wuyaayoo lañ nekk. waa ji wax na ko léegi dafa metti temps yi dem nañ proximité Pikine Marché 5 fekk nañ fa sax ay mbokk alpolaaram d'ailleurs yu ne ñoom duñ ko votel parce que ñun ne da ko bandam ñun loolu gëmuñu ko. saxul ci ñun euh, balaa kii daf ñuy rey. Mhm. parce que bu fekkee da nga def in investissement. Mhm. te impôt et domaine saa yu xool sa chiffre d'affaires génne la CGU boo xam te ne mënoo ko fay. man mi milieu commerce laa nekk. Mhm. commerçant yi sax day ne léegi nañ ñuy fay ko PPA muy patente bi. parce que bu fekkee man damaa yor magasin def ci 60 million te chaque année su ma defee inventaire gis ni maa ngi perte parce que dëkk bi doxul Sénégalais yi jënduñu. Mhm. man yëre yi ma yor juróomi at ci ginnaaw ba léegi moom laa yor damay nice nice foot pass waa rek taxaw cela veut dire que Sénégalais yi dañu fatigué ñi nekk ci commerce bi jaraluñu parce que problème de pouvoir d'achat la Sénégalais yi am. Mhm. te loolu li Youssou Ndour di wax. Mhm. ku nekk sa bopp doy na la misaal. suñu xoolee ku nekk rek xoolal si sa bopp. xam ne Sénégal wax ay la yéwén nit ñi sonn nañ léegi nag comme que Macky dañ ko joxoon dama bëgg nag mu am courage gis nga Wade bi mu jële pouvoir bi dañu nommé woon benn waykat bu siiw yaayam Derek Maxime mm-hmm. dañ ko doon ministre de l'éducation mm-hmm. femme bi dafa amoon hauteur ak grandeur mm-hmm. biñ ko nommé mu xam ne lii moom attunu ko mënu ko yor dafa ñëw delloo ko loolu foog ne ku ku ku xam. Mhm. premier gouvernement Ablaye Wade. Mhm. dañoo def gouvernement 72 heures ñu defaat réaménagement. réaménagement waaw kon xam nga ni Macky na ko Sénégal gënal. léegi nag ñi mu àndal bu ñu jàppee na leen seen bakken man li suñu kilifa gu mag yi waxoon yàlla na yàlla yokk leeram sëñ Sidi Moxtaar loolu laa gëm gis nga Macky bu yaboo mu jàmm te mu indi fi jàmm. nga réew mi li sëñ Sidi Moxtaar wax mooy dëgg ku fi indi lu dul jàmm kenn du ci ëppale li ñuy ñaan mooy yàlla def jàmm ci moo ñu ñëpp njaboot jàmm ko jig politique defuñu ko pour am ci dara dañ koy def pour servir suñu dëkk. jàmm moom ku ko amul yaa ngi ci jàmmaarloo réew ñi ko amul yëpp ñi ngi jàmmaarloo ñu gis ni ñu war a doxal jàmm ji pratiquement daanaka bu ñu deexoon ni situation bi demee doxuñu ci jàmm te jàmm ki koy suux ki koy suuxat moo ko sooke léegi yéen lan ngeen fas yéenee def. xam nga luñ fas yéene def mhm. mooy ñu gagné ko par la voie des urnes. en quoi en faisant. xam nga Macky mhm. dañu bëgg mu fexe ba. sénégalais yi ku ci nekk fa nga war a voté soo demee nga fekk fa sa tur dañ koy ñaan élection yi mu teg ko ci yoon li mu defoon si législative yi di téye ay bulletin de vote jàmbur comme li mu bëgg a def Idrissa Seck mu xam ni loolu duñ ci ànd te bépp électeur bu ñu jox carte d'identité orienté la ci benn centre de vote sa bureau de vote boo ñëwee même bu fa sa tur nekkulee di nga voté sinon dañuy bloqué vote bi loolu moom bu fekkee ne dafa jàpp ni saboté fichier bi moo tax mu toogaat fi c'est peine perdue parce que li tax ñuy wax nañu wax jàmm mag yi bëri am na ay pexe mais nag gis nga ku li aj ku li ko gën a sori. waaw ah, mais nag ku aj ku ne day bañ ko téen de. non man moo tax man la ku li ko gën a sori gis nga li mu aj gis nañ ko te dinañ ko ajee ko ci suuf. te buñ ko àjjee bu ne bu ko àjji sama yëf ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk na jëlee fi jaarale ko ci yoon ñu gañe ko mu def passation de pouvoir dem si jàmm bàyyi ñu si jàmm ndax am réew ku bëgg boo ko gañee toog fa doo ko fas yéene taal te lii mu def du jur jàmm xam nga man du nekk ci benn centre de vote mhm. nekk mandataire bi. ñu di ma sàcc may taxaw di xoole loolu du ma ko nangu te bu ñuy bloqué vote bi opposition bi yëpp ñooy taxaw gis nga waxuma la bureau de vote bi nga xamante ni dañoo ñëw nit ñu jox ko carte électeur mu ñëw fekk fu turam mais centre de vote bi bu ñu ko defee ci benn bureau de vote centre de vote bi yëpp dañ koy bloqué dootul fonctionner mieux encore dinañ fexe ba fépp ci Sénégal bu ñu ko defee ci benn centre de vote fépp ci Sénégal fu centre de vote nekk dinañ bloqué le parce que bu fekkee ne mën na. tout en sachant que ni voter droit wu Sénégalais bi rawatina citoyen bi ñëw pour voter. non dama ne xam nga la mooy problème mhm. bu fekkee ne dafa bëgg a ay njuuj njaaj ba jàll ñoom wax nañ ni seeni militant dinañ fexe ba ñu voter mhm. xam nga si critères yi mu bëgg a basé wo pour gagner loolu du ko jàllale xam ndax ma wax loolu. Mhm. bourse yi la jàpp. te bourse familiale yi seen ay militant rek lañ koy jox xam nga déjà yow sa militant moo lay voteel foofu bu fekkee ne électorat boobu rek nga yaakaar mënoo gañe kenn te dernière élection yi nga xamante ni ñëw na fi Macky il a été battu a soixante dix pour cent ñoom trente quarante neuf pour cent la ñuy wax il n'avait pas quarante neuf pour cent Moussa Sy moo tax ñu xëcc ko Moussa Sy moo fi njëkk a taxaw théorie de trente trois pour cent bi mu waree dem yàgg na dafa nekkoon ci biir gars yi xam nañ ko comme ni nga ko waxee mais tey Moussa. da ko doon paraphasé rek. waaw mais Moussa lan la mën a apporter tey Macky parce que Macky képp ku war a dem ñëw ci moom boo amul buntu boo jaale dana la xaaral ba eh, nangam dina ñëw bu ñëwee nga jaar fa Moussa xaar ba bu ñu démettre Khalifa ci mairie bu Dakar mu jéem a postuler wu mhm. pour nekk maire kenn du ko jàppale bu boobaa mu ne léegi damaa soxla kenn jàppale wu ma mer naa dem naa. Baraya barki Demba Ndiaye bi ñu ko waxee dafa demul fenn fan la ñu doon xaar xam nañ ni Karim dinañ fexe ba du nekk candidat léegi bu boobaa ñu ne ah ñun de Karim nekkul candidat mais Macky libéral la ñun moom la ñuy jàppale ji suñu bokk libéral xam nga yooyu lañ wax ni du ko yóbbu fenn su nekkee parcelle c'est parce xalifa moo ko fa teg waa parcelle décision bi ñu jëloon ñëpp xam nañ ko y a beaucoup de maires qui sont devenus maires dans les communes de Dakar à travers xalifa xalifa parce que nit ñi dañuy bëgg a sanctionné xalifa ne leen bu ngeen sanctionné man du ma mën a jàll Dakar ñu teg ci suuf c'est ça la réalité mhm. kon ñoom fay ñu naar bi xorom mhm. mais nag man souveraineté peuple bi laa gëm mhm. tey bu opposition bi yëpp demoon jàppale ji Macky Sall face à Idriss Seck ndax parce que seul le peuple est souverain. mais Mama situation bi yaa ngi koy wax sànq l'heure est grave depuis 1948 bi Sénégal doonee Sénégal ba léegi ñuy voté bien vrai que 60 lañ jot suñu indépendance mais histoire xam le nañu depuis 1948 ñu ngi voté au Sénégal avec l'AOF et autres structures. le problème en est que ren la ñuy mës a assister élection yoo xam ni PS du ci am candidat PDS du ci am candidat parti authentique yi nga xam ne ñoo fondé le Sénégal ba mu am li mu am tey du ci am candidat loolu loo ko jàngatee. dama la wax ne la PS. Mhm. am na candidat donte bokkuma seen parti PDS am na candidat mhm. gis nga Khalifa Sall ak Karim Wade ku leen bëgg a génne ci élection yi da ngay sonn mais mënoo leen ci génne. kon génn guñu ba fi mu toll nii. non dama donte conseil constitutionnel joxe nag. non dama ne ndigal xam ne xam nga. élection yi ñaari kandida yooyu ku ñu wax ni doo ko gañe war ngaa gëm ni doo ko gañe te lu si kanam raw li bët gis nga opposition bi du ñuy wax rek c'est parce que il faut que ñu waxee noonu pour wan ni Macky Sall ni ko yow fi nga bëgg jëm xam nañ ko te dañ ñu fa fekk. mais loolu duñ ci yegg xam ndax duñ ci yegg. Hmm. Macky sera dépossédé du pouvoir d'une manière honteuse. gis nga Macky bu ñu demee te ma lay wax tey ni élection yi élection benn tour la Macky il sera battu au premier tour. élection yi doon ñaari tour non élection yi premier tour la. loolu dafa leer na nga bàyyi nag ba coalition définitive yi taxaw xam nga fi mu toll nii ci xeex la nit ñi toll bàyyil ba ñu xeex. ba xeex bi jeex. ba ñu xëppoo butéel bu mujj bi. waaw. ba war a sëgg ci euh, enceinte bi war a sëgg. non Macky sax du sëgg. ah dina sëgg kay ndax moom mooy mbëru benn Bokk Yaakaar. non non dama xam nga combine bëre. Mhm. la gars yi seen mbër doon bëri ñu yenu ko ba ci kaw ñu ni suñu mbër kenn daanu ko dóor suuf ñu ne daanuwul. Mhm. Macky ci loolu la jëm. genn wàllu pooj bi la teg. waaw ci loolu la jëm maanaam xam na ni bis demee ci élection yi mu jox Sénégalais yëpp seen carte électeur ñëpp voté ñu wàññi mu jaar yoon ñu gañe ko xam nga kooku moom moo bëre mais moom nangu wut a bëre da ko bëgg a jël élection yi daf ko séddale bukki bukki bi yaam de muy séddale dafa ne bii bukki bii njuur bi sàmb bi si des ki ndeyam dee ki ndeyam dee la sama day dee élection yi noonu la ko bëgg a séddalee ñu xamal ko ni ko loolu munul nekk sénégalais yi dem nañ ci ñoom waxtaan nañ ak ñoom wax nañ leen wax nañ ñu président Idriss Seck wër na Sénégal yëpp nag dem na gis na Sénégalais yi te gis na seen coono te xam na ko te xam na ni koy faje xam nga ki xam ni ñuy fajee coono ak kii làmbaatu coono bokkuñu. Mm-hmm. Macky bëgg na mais mënul. le ko président Idrissa Seck waxoon na Macky peut mais il peut peu da xool Macky Sall fépp fu mu jël ay milliaro au Sénégal dugal ko ci boo ko lijjantee ba lijjante rek Sénégal dafay perte ku nekk xam na ni port de Dakar bi keroog aji bu sumaare wax na leen ko mhm. nee na leen léegi mi ngi nekk cinquième position koo xamante ne yaa nga daan xëccoog le port d'Abidjan mhm. dem na sax ba ne day wàqe port bu Kaolack. bu Kaolack pour bateau yu mag yi mën faa teer. Mhm. parce que def na ko kay. Gambie. def na ko ba ñu inauguré ko démb. non yéene bi la am. Mhm. xam nga Macky loolu moom mooy mooy nag. Mhm. waxeegu ko dafa am yéene waxe ko. parce que Gambie port de Gambie la bëgg a jege. Macky dafa ànd ak ñoo xamante ni xamuñu état mënuñu état mhm. président Idrissa Seck waxoon na ko ci at bu njëkk ba ni bilan bu njëkk bi mooy yëf yi doxagul. Mhm. comme que mënu doxal. deux ans après mu ni waxum waxatuma doxagul. Hmm. waaye doxul doxul. waaw te du dox. mais loolu mooy dëgg xam la mooy dëgg. Hmm. xam nga waxoon naa ko moo xamoon naa ko te Sénégal fi mu toll nii crise économique bi fi am. ku nekk xam na ni Sénégal problème daf fi nekk sénégalais yi sonn nañu yaa ngi gis les bacheliers yi nga xamante ne ñu ngi leen orienté woon dans les universités privées fayaluñ leen mhm. waa état bu mënta am seize milliards pour fayal ay étudiants Macky sax bi ko waxee dafa ni doon def lu baax ba coono fekk la ci mhm. mais moom moo war a garanti doomu réew mi ñu mën a am une éducation mhm. parce que dëkk boo xamante ni. ay ndawam amuñu jàng seen ëllëg wóorul mhm. kon li ñuy wax mooy Macky Sall Sénégal yi xaaruñu woon ci lool mhm. loolu ci moom. Mhm. réew nag boo xamante ne amul éducation amul santé amul sécurité. boobu réew subaam wóorul. te gis nañu gone yi jànguñu ku feebar doo faju sécurité amul. xaalisu Sénégal bi nga xamante ne moom la gis or. les mines de Sabadola. Mhm. ñëpp gis nañ li nga xamante ne xew na ci. Mhm. bu ñu waxee ni Sénégal or a ngi fi te suñu jigéen ñi takkul ñu or ñun dañuy am problème réew moo xam ne dañ ni ngi fay génnee or di ko jaay mhm. te or boobu feeñul ci koom-koomu Sénégal feeñul ci doomu réew mi loolu dara gënu ko nekk problème affaire publique yi. ni koy gérer moom moo baaxul Macky ñi mu àndal xamuñu état te ñi ñu àndal ñu xam état dugaluñ leen ci appareil bi parce que socialiste yi sax loo mënti wax donte ñoom nag mosuñoo jëriñ dara Sénégal. ils ont fait quarante ans de pouvoir. waaw mais quarante ans de lan. quarante ans de pouvoir benn autoroute. ah def nañ quarante ans de pouvoir. daal te li ñu jot a am a kus néew ci démocratie ñoom ñoo ko fi jëmbat yow itam. déedéet. xam nga ñoom lan lañ si jëmbatoon. Mhm. loolu nag Macky nag ci la loolu nit ñi jëm ak moom xam nga Macky soo xoolee li waa parti socialiste doon def bi koy def benn télé fi nekkoon rajo mhm. dañ daan bàyyi ba huit jot ñu génne seen ay résultat bopp def couvre-feu ñaari fan ñu ne Abdou Diouf gagné na mais dañ nekk à l'ère numérique léegi résultats yi nga xamante ne moom mooy génn. ci centre de vote yi. nit ñi mën nañ ko la minute. waaw à la seconde sax ngay wax lañ koy am. Mhm. dégg naa sax ñu ni jour élection yi dañuy fexe ba internet du dox mais xanaa bu ñu yoree suñu procès verbal suñ loxo duñ ko nangu l'opposition sera représentée dans tous les bureaux de vote du Sénégal et de la diaspora yi élection du ay élection yu ñuy sàcc léegi nag ñoom seen bakkan gënul suñu bos ñoom bu ñu nangoo teg seen bos rek ñun ñu gën a teg suñu bos. wax dëgg yàlla te nag bu ñu tegee suñuy bos dinañ am fulla bi Seydina Alioune amoon Seydina Alioune bi mu dajeeg yéeféer bi dafa am fulla ba yéeféer bi rayu ko beneen bi mooy li nga xamante ni moom lañ gis ci réew mi gis nañu lu yàggul dara ay ASP jàpp ay handicapé dóor leen ba ñuy bëgg a dee gis nañ ci opposition bi si sama kanam ay ASP jàpp leen dóor leen te ASP yi li sëñ Mansour Jamil wax ne ay milice lañu loolu lañu gëm nañu leen mettre en l'écart de ces élections ñoom ils ne peuvent pas garantir la sécurité publique bu fekkee nag dañ leen bëgg jël pour utiliser leen contre l'opposition parce que seen ay wax loolu nga ciy déggee mhm. force restera à la loi force restera à la loi mhm. mais kan mooy hors la loi bi kan mooy hors la loi bi. mais aussi la loi. qui de se soumettre à la loi de la kii kan moo jël yoon dëggaate ko di def lu ko neex foog naa ne du ni opposition bi ñoo koy def parce que opposition bi ma gis de wax dëgg yàlla ñoom kumba amul ndey lañu. Mhm. kumba amul ndey nag du ñeme yoon bay dal ci kaw yoon mhm. kon. Macky Sall ak ñi mu àndal nañu dellu seen xel xam ne Sénégal après le 24 février bu ñu leen gagné itam Sénégal dafay continuer nekk mhm. Abdoulaye Wade ñi àndoon ak moom bi ñu leen gagné dañoo nangu mhm. donte nag am na ñu bañoon mhm. ñooñu tey ñu ngi ci côté Macky Sall te xam nañ leen li ñu doon manigance xam nañ ko kon. ki waxoon ci seen biir ni bu ñu gañee ñun ñëpp kaso la ñu jëm moo toogaat ba heure bo ko neex mu génn ni Wade gañe na 49 pour cent. waaw mais xam nga. te tey mi ngi ci camp présidentiel. waa xam nga ñooñ ñëpp daanaka man dama leen di jàppee comme ay comme ay autotrophe parasite <laughs> xam nga autotrophe parasite c'est celui qui vit aux dépens des autres. Mm-hmm. xam nga tan mm-hmm. donte loolu la ko yàlla jagalee xa xas xasuma ko ci loolu mm-hmm. mais tan tant que mbir amul rek du dund. daf am ñoo xamante ni duñu référence ci réew mi. te du ñu citer exemple mu ko ba citer leen. Mhm. man bëgguma tooñ kenn. mais xam lu gën a bon ci àdduna nga nekk ci am réew am fa tur te sa tur heure bu ñu ko tuddee rek nit ñi seen xel ak seen xol yëpp jaxasoo. gàkkal sa der gàkkal sa deru jaboot. loolu c'est parce que sax xam nga doy na war daal. Mhm. doo bëgg wax wax joo xamante ni dafay jege xaste. mais ku nekk war nga sóor suba du añ du reer mais dañ koy sedd mhm. war nañu gore mhm. parce que amul kenn suñun kuy ñëw ci àdduna indaale alal mhm. bu ñu alal jaral ñu jaay suñu gor wala ñuy dem ci yenn affaire yoo xamante ni su ëllëgee ku ko dégg dafay wax ne ñii kat xaalis taxoon na seen baay def nangam wala seen yaay def nangam wala nangam nangam yooyu ay mbir la yoo xamante ni dafay naqari parce que xale bi après dafay nekk victime. Mhm. parce que am na ci ministre boo xamante ni tudd nga ko doomam nekkoon na ci benn organe de presse. Mhm. jooy na ci plateau. Mhm. parce que dañu revue de presse ñu xas papaam. te ay confrères am ko def. mu gis ni lii ñu wax te ay la yéwoon li ñu wax moom moo nekk. xam nga ñu bàyyi alalu Sénégal bi ñuy fooye baaxul. et c'est très dangereux. lu ñëpp bokk. buñ ko jox ñel nañu yor ko bàyyi ñu si te li ñu gis tey ci nguuru Macky Sall bi dafa mel ni li mu waxoon ne une gestion sobre et vertueuse loolu dafa mel ni boon lippoon la nekk léegi si ñun mhm. parce que da ngay xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen wër démb ak bët ki démb te nit ñi xamoon leen te tey ñu leen dégg ñuy maye alal te kenn xamewu leen alal ci diggante bu gàtt boobu fan lañ ci war a mën a jëlee alal bu ñuy fooy man damay wax ne toujours sax caisse noire sax gëwuma ko mhm. suñu wax ay fonds politique man ne loolu man gëwuma ko alalu askan bi laa gëm man li fi nekk askan bi ñoo ko moom parce que ñoo ko fi def que ñoo ko fi def kenn waru ko fooye mhm. mais malheureusement tey corruption bi fi ñu koy dégg fépp du neex kenn da ngay dégg ñuy tudd corruption di tudd police di tudd administration territoriale par le foncier mhm. di tudd gendarmerie kenn si ñoom moo ko wax mhm. y a livre du colonel pour l'honneur de la gendarmerie mhm. di tudd nos tribunaux mhm. naan jox nañ leen fële ay suuf jox xam nga yooyu ay mbir la yoo xamante ni dañuy dem ba dañuy gàkkal deru justice dañuy nësaxal xelu askan bi ba nit ñi seen jox dañuy jàpp ni tey man ñi nga xamante ne ñoo ma waroon yoon yoonu jubte wala ñoo ma waroon su ma juumee ñoo ma waroon na jubanti naa ne ñoom jubuñu kon man parce que benn booy nee na fii ku nekk li nga gis ngay sàcc mm-hmm. oui dama leen ko eh, booy bàyyi leen li ngeen def ah yéen yéen daw di manifester di këf ay téléphone mu mais grand bo fii ku nekk li nga gis rek ngay sàcc. malheureusement. malheureusement. maman ça a été un plaisir ah doon la dalal ci plateau bi mu mel ni lim ñu cërale woon ci wàllu waxtu jeex na takk takk takk takk takk takk lan nga jàpp ni waroon naa la ko laaj. te laajuma la ko di la remercier tamit ci sa disponibilité ndax bi ñu ko jàppee ak fi émission bi amee matul vingt quatre heures mais terewul da nga koo nangu lan nga jàpp ne waroon nañ koo waxtaane te waxtaane wuñu ko laaj non foog naa euh, waxtaan nañu ci situation géopolitique gu Sénégal ngeen permettre ma rek ma ginnaaw bi ma leen sant ci invitation bi mhm. parce que wax dëgg yàlla tamit ngeen euh, mën ñu permettre pour ñu mën a exprimer wu mhm. à travers vos antennes loolu yombul parce que aussi gis nañu Afia FM rajo la boo xamante ni rajo bu nit ñi di déglu la yéen organe de presse bu organisé ngeen mais damay profité ci occasion bi di remercier le coordonnateur de la commune de Golfe Sud Aline Badara Cissé di remercier les responsables et les militants du parti Rewmi de Golfe Sud du département de Guédiawaye mais aussi di sant di gërëm le président Idriss Seck si taxawaayam ak lucidité bi mu àndal bi nga xamante ne ay kilifa diine woo nañ ko ñaan ko mhm. ni ko lépp loo xamante ni day indi fitna ci réew mi ñu ngi lay ñaan ñu ba ci dégg mhm. loolu foog naa boobu ba léegi mu ngi koy jëfee mi ngi koy doxe mhm. mais ñu ni tamit ñu ngi dellu di ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan Macky Sall moom mi nga xamante ne moom la ñu dénk réew mi mu dellu ginnaaw te xam ne Sénégal fi mu jëm baaxul. te jox leen seeni armeel te mu organiser rek ay élection xam nga sax ñun daanaka ñun wax dëgg yàlla armeel yi ñoom suuf sa fa mu war a nekk saakal lañ ko pexe nee nañ daal dépotoiru mbalit la woon kenn mënu faa suul nit xam nga loolu lu doy waar la ñu ngi ñaan Macky Sall le président de la République le gardien de la constitution et président de tous les Sénégalais y compris xam ne mën nañoo waroo gis-gis mën nañu wutee gis-gis mais ñun ñëpp ñoo am yéene bu ñu am ci Sénégal di remercier suma benn xarit bu baax ñu wax Demba Kumba Diop aussi. Mhm. koo xamante ni bëgg na ma ba bëgg parti bu bokk. Mhm. ba parti boo xamante ni bokk nañ ci rek automatiquement da ngay gis ni que parce que xam ne ni ñun du ñu aventuré wu ci inconnu maanaam du ñu dugg ci loo xamante ni xamu leerul ci seen bët. ñu ngi remercier tamit suñu ay dëkkandoo Parcelles Assainies unité 4 Cité Fadia unité 1 ba unité 6. Mhm. responsable yi nekk foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant. di leen gërëm di leen wax ni seen taxawaay rafet na. ngir xaalis mais dañu ànd ak ñun ngir gëm-gëm. Mhm. parce que ku nekk xam ne ne opposition ku ci nekk xaalis amu fa. Mhm. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. moo ngoog Mama Mama Cissé woon kon di adjoint coordonnateur ba kon parti bii di réew mi waaye tamit yor lépp lu jëm ci wàllu vie politique boobu la parti ci département bu Guédiawaye rawatina ci commune bii di Golf Sud. ngeen doon ñoo teewlu seen émission bii di kon dialogue social doon ko doxal ni ki tey jii nag Birame Sène nekkoon ci kàddu gi ci xarala gi aji Maye Diagne Balde ci régie bi ñu àndoon ci ak ki nga xam ne moo di Mamadou Keita di leen sant di leen gërëm di leen wax ni émission bi dinañ ko rediffusé waat dimanche ak jàmm bu ñetti waxtu jotee sant leen gërëm leen ci topp ba amul app bu ngeen ñu jagleel ba dee fii teewloo boo leen lii seen yitte ci Afia FM jaa ngeen